wala amener na fii ci euh, Sénégal parce que entre temps ci cinq ans yooyu gis nañ fi ay euh, journalistes yoo xam ne bu yàggul dara arrêté nañ fi dans l'exercice de leur fonction non malheureusement euh, damay regretter que amour évolution parce que léegi ba léegi ñu ngi commencé wax mooy su li ngay wax ah dans la double si au ñuuf waa kii dañ ko waroon a jàpp Macky Sall mi ko jàppoon lii mu def baaxoon na ñu xam ne lii ah on voit Bataille Légui, on a vu hier un magistrat, juge d'instruction, pas Diapokosaniko en prison. Ben, il y a une collusion, il y a des forces qui suivent ou devancent les intentions. Il y a une dictature. Hitler n'aurait jamais été Hitler. Hitler, si amoulon les collabos, les capots, nous avons été les capots. Si amoulon, nous avons des rafles, si amoulon. Euh,

les moyens de l'État, la puissance publique, pour écraser les citoyens, attention, il y a un problème intellectuel euh, Albert Hirschman sociologue politiste et autres il a dit l'individu a trois options en société Nitki. Il option la options en société Ben bi s'exprimer ben s'accommoder masla s'exiler to opt out to exit or aujourd'hui on n'offre pas aux Sénégalais la possibilité de troquer la contribuer à son développement t'aider. comploter Ousmane c'est trop grave et chaque fois qu'il parle il s'imagine pouvoir menacer les gens terroriser des déclarations spartiates mais c'est gravissime lii mooy man de ragaluma si dara je suis prêt à mourir en prison man Adama Gaye baal ma euh, wax sa xalaat d'accord mais ak anam ba ngay waxe sa xalaat est-ce que du loolu tamit lañu ñoo parce que mën naa wax man sama xalaat de manière polie comme on dit de manière posée euh, sans pour autant utiliser des termes qui peuvent choquer ñu dégg sama xalaat mën ma ci naw mën ma ci euh, mën ma ci euh, nangul xalaat bobu te du jar euh, discours va en guerre le discours euh, à la limite insultant pour certains est-ce que nous tamit war nañu ko dans nos propos muy journaliste muy euh, homme politique wala keneen ku mën a observation Comme nga tout à l'heure notre ami a donné des revues de presse bi devant les commentaires sont libres mais les faits sont sacrés la ngeen ko wax. Mhm. les faits.

wax mën nga ko rafetal parce que wolof ñun tamit li nga wax sunu adala deng man sax leg leg ci trop vert ndax man lima xalal rek lay wax mais jàng si àdduna ne leg-leg société sofi nekay da nga jema wu tamit jema rafetal jema met mettre forme bi mais warul dem ba nga xam nga nek nafiq parce que loolu ragal nafiq dañu bëgg wax ne lu ngeen si wax rek wax la ko ba nga musculation bi mo am doole ji mo am ont ko donc loolu problème bi dafa am yoo xam wolof handicap au développement dama koy wax nag wolof suñu handicap la dañuy wax yoo xam da nga ba société bi liñ si a wax du ko wax xam nga journalisme encore mon professeur Mohamed Diop liñ wax mais nit on dit telle personne est décédée telle personne est morte loolu la ñuy wax olof lan lay wax diw dafa nelaw dafa làqatu dafay noppalu loolu la ñuy wax donc quelque part tamit autant ñu nangu suñu kàddu suñu aada autant aussi nag loo xam-xam bu nekk expert expertise bu nekk dafa am ay normes l'équilibre l'équilibre loolu mooy wax di waaw mais moo tax ma il faut que nit ñu toog waxtaan hmm. mais avoir le courage aussi ñu waxtaan si ndeyu mbill gi

parce que soo toogee Sénégal nous am des violations des libertés ñu jàpp ay nit di leen forces gis force de défense et de sécurité di dal ci kaw nit ñi ñuy reyaate les ressources naturelles et financières Ni koy sàcc ñii di détourner, nga 500 milliards Ni taxaw ñu recruter waat la ci pouvoir bi nga que Ben mara bu waxu ci ñu ne kenn du ko fi waxaa ah, ndax ñii dañ leen war a wormaal ah ah da ngeen war attention su nga nekkee li ngeen nekk seen ma may leen may ko dafa fekk ba ko jotee ñoom li wax dañ ko def de la même manière aussi que sur tous les enjeux la la wax kuñ soo gisee Jeux olympiques yi nga gis kan la fa taxawal président ba ma nga Paris ak kan depuis 30 ans 40 ans les mêmes frimous on veut faire un renouvellement de de de ce pays amul kenn nangul waxtaan loo def rek di banalise tu trouves que c'est normal c'est quoi vraiment je crois que li nga xam ne doxul ci dëkk bi dañ si war a waxtaan suñ si waxtaanul tamit dëkk bi dee dellu gannaaw parce que dëkk bi aujourd'hui au moment où nous parlons Sénégal est dans l'impasse moo tax nga ay emprunt obligataire nga gis ay FMI di leen commencé et cetera cela dit au moins permettez un bémol sur quelque chose qui marche je félicite les deux lauréats qui ont marqué euh, le concours général ça me rappelle la tradition d'excellence bi nga xam ne qui a toujours existé et qui existe bataille Sénégal, du temps des Rosiens, Suleiman Bachi Diagne, Semou Pategui, et j'en passe. Lolo au moins, autant de réussir autant sur tout le spectre, le reste, lolo effort bobu lañu wara def. mais nañu waxante dëgg l'olo moom mooy c'est le début du tout. waaw euh, balaa ñuy dem M. Lamine Senghor Birahim voilà vas-y papa Qu'est-ce nga boo xoolee yow nooy waxee.